OGAIP bi di nuyu les collaborateurs des ministres di nuyu le ministre du travail di nuyu le ministre des finances monsieur Moustapha Ba ñoo fi tey di càmbar li nga xam ne moom mooy ministre euh, ministère de du développement industriel et des petites et moyennes industries doon loo xam ne sérieux la lu am la parce mënta am koom bu mucc ñoom te li nga xam ne moom mooy industrie taxawul bu baax bu dëgër monsieur ministre ma bokk ci département Kaffrine région Kaffrine nga ñëwoon fooy ci agropole centre ah, ñu ànd dox wër wax natt boobu ba léegi gisatuñ la déggatuñ te mu doon zone boo xam ne c'est le grenier du Sénégal tey bu coow li bëree ci etaa bi na taxawal prix na taxawal prix c'est parce que la nga xam ne war nañ ko faa taxawal ci industrie taxawagu fa président de république nag son excellence monsieur Macky Sall sant di ko gërëm parce que ku ne xam na ne vision rafet na taxawaayam rafet na yéeneem rëy na ci Sénégal mais lim man mooy tànn ay nit ñoo xam ne am ci ñoom yaakaar am ci ñoom kóolute teg leen di ko traduiral ay vision ñu lay invité à nga gën a góorgóorlu ci affaire yi jël ko au sérieux xam ne président développement la bëgg moom la soxla ndax fu mu toll mi ngi pressing le ministre finance di ko wax ne ko joxeel ñu liggéey tey suñu réew fii ci senegal am nañ suuf su bëri am nañ naaj am nañ ndox am nañ tamit ay nit ñoo xam ne dañoo débrouillé pour liggéey pour liggéey xam nañ ne gis nga réew kenn nax sa morom seul le travail ku liggéeyul doo am dara tey coole li muy bari bari ñu naan mbëkk meeg dem gaal yi ñooñu dañu am seen ambition def tey yow yaay gëm ne fii ma dëkk àll la ñu suuf lañ am ak ndox ak géej nga xam ne yow nit nga doomu aadama nga yàlla may na wér may la kàttan liggéeyal góorgóorlu yàlla dimbale la su ko defee tey bu ñu demee ba enseignant di jóge fii bàyyi salaire am ak président de la république ni mu valoriser ni mu valoriser yi jox ay salaire yu baax ñu ne ko fi ñukk di dem ca gaal ya gis koo xam ne dafa dëkk ci kaw bi jël bëri ko gerteem bay ko jikko mu ñor mu am ci lam cay am dikk dem liggéey ci leneen kon affaire boobu moom affaire clandestin bi voyage irrégulier bi loolu du ci du ci état du Sénégal gëm-gëm la waaye nag industrialisation bi donc cee war ni président tëggee nga traduire la ko noonu parce que nag réew mi ñu am réew la moo xam ne industrialisation bi buñ ko buñ ci jàppee ba nga xam ne produit yi ñuy ñorol fii ci suñum réew duñ ko yóbbu di ko exporter fini bu boobaa dinañu jëriñ dara parce que chaîne de valeur bi day yokk kenn ku ci nekk da ngay am ci loo yëngatu exemple bi ma ciy joxe mooy Touba gii Touba tey bu gerte gi ñoree ñoom ñooy dem ci gox yi ak xaar yi parce que nag baykat am problème am feebar wala yaayam feebar wala mu am soxna soxnaam mu am doom mu war a ngénte mu naan damay denc gerte gi ba prix bi ba prix bi cher ma doo koo jaay kenn mënta yor sa alal am sa soxla di ko téye daf koy jaay mais nag su fekkonte ne industrialisation yi taxawaay bu mat bi nga ci war a taxaw taxaw nga ko ci kenn du soxla ñuy taxawal prix gerte pour baykat bi mën a jaay gerte monsieur le ministre tu es jeune l'avenir est devant toi am nañ président bu am ambition bu tëgg ko am ministère des finance boo xam ne heure boo ko waxee guddeeg bëccëg suba ngoon mi ngi taxaw am ay jeunes yu dévoués am ay liggéeykat góorgóorlu ci li nga xam ne moom lañ la jox nga siggil son excellence monsieur Macky Sall ci liggéeyam maa ngi sant